xalaat bi bàyyi ko ci boroom xam-xam yi sëriñ Muntaxa Basiiru Mbàkke dénk li nga xam ne moo di jumaay Touba jàpp ci armeel yi daayira Muxaddamatul Xidma gis ne li nga xam ne moom moo jëm ci can gi ñu tenal jigéen ñi ca jamonoy sëriñ Fàllu ba nëga mu nekkoon ñetti junni ci suñuy koppar jamono ji li ko mën def moom moo di juróomi junni ci lañu daal di ñëw ci xalifa général des mourides daal di koy fësal boobu lee xalaat moom sëriñ Muntaxa Basiiru Mbàkke yi lay kàddu la ci daal di teg la te eh, maanaam ñi ginnaaw bu sëriñ bi amee mbég ci daal di sant sëriñ Cheikh mbakki Abdou Latif mu daal yëkkati ay kàddu nag leeral li nga xam ne nii moom moo di mbirum can googilee ci mbooleem yoonu murit ak jurit yi nekkee ci réew bu Sénégal yëpp jataay bi nag leeral nañ sëñ bi fi ñu weesu wax nañ ko xalaat yi ci kanam xalaat yi ci kanam nag ji ci njëkk mu ngi delluwaat ci lépp ci lislaam lépp delluwaat ci diine te tënk ba tey mu ngi jëm ci wàllu can gi ñu war a can soxna soo xam ne dañ koy labat ngir war ko booleeg borom këram can googu ñu gis ci mbind sëriñ bi ak ci ndigalam ak ci ndéngaaneem ay jamonoom mu digle woon ci ñaar téeméer mag ña doon ci def doon ko def ñaar téeméer yi ba àgg ci ay jamono sëriñ Fàllu ak jox ay ndigal ñi doon taxawuloo wàllu diina ja ñu def seen i gëstu def seen i xayma ba la ñaar téeméer manoon ba ko sëriñ bi santaane jamono sëriñ Fallou yooyu ñetti junni moo man loola sëriñ Fallou joxe woon ñetti junni yee nañu joxe can gi ñetti junni yee ñu demaat ba jamono yi ñoom ñii ñu gëstuwaat seen gëstu ba gis ne la ñetti junni manoon ba ko sëriñ Fallou digle juróomi junni moo ko man fi ne ak ñaar téeméer biñ ko leeralee sëriñ bi sëriñ bi ne kon kàddu yooyu nañ ko yëkkati jullit yëpp ko bokk ndax loolu mbirum lislaam la lislaam lu ñu ci wax jullit yëpp lañ koy boole moom kàddoom bu koy yëkkati lislaam moo koy tax a jóg ni ki nga xam ne Serigne Touba taxaw lislaam rek ko taxaw na jóg ci ab fàttali boobu la dogal Serigne Mountakha Bassirou Mbacké ma ngi ko jëlee ca Porokhane nga xam ne nii jamono ji fa la nekk boobaak léegi léegi mu def benn weer ngir waajal lu jëm ci màggalu Porokhane gi nga xam ne ñu ngi ko jàpp ci juróomi fan ci weeru mars bi ñu dëgmal